salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen yéen ñëpp ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey ji 11 novembre 2024 ci wàllub tàggat yaram d'abord képp koo xam ne nii abonné go suñu chaîne YouTube bi bu ko tàyyi la bouton s'abonner bi ngay like di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox matin midi soir. mu ngi noonee gars yi dinañ wax ci Hansi Flick kàddu yu mu jot a génnee après bi nga match bi nga xam ne Barça ah, di clubam jot na ko football contre Koke. ñu naan ko Real Sociedad mu jàpp ne ne Barça démb responsabilité bi lépp ñooma moomee di coach bi ak joueur yi defuñu litax ñu war a mën a gagné match boobee dinañ ci ñëw ab ah, benn par benn mu ngi noonee kookee di FC à Barcelone ci situation yi ñuy dund nii waaye Tottenham nag wax na ci situation yi ñuy dund kookee di Ange Postecoglou moo nekk coach ñoom Pape Matar Sarr moom nag génn na ba ne euh, euh, l'inconstance euh, cette saison c'est dema ma faute c'est ma responsabilité mën naa ni ñàkk constant bi ñàkk constant tey ñu gagné suba ñu gagné leen ginnaaw suba ñu teg leen ma deux défaites consécutives nee na loolu yëpp problème bi mooma mooy responsabilité bi l'inconstance que nous rencontrons cette année-ci li ñuy dund ci wàllu mauvaise performance cette année-ci mu ngi noonee ak ñàkk continuité en fin de compte et dû à moi a à mon approche lépp moom ak jegeem na njegeñaale mu ngi noonu ne c'est que euh, chaque euh, c'est que chose hmm. c'est quelque chose bokk que je dois essayer de corriger pour voir si je peux euh, aider les jour dans ce domaine nee na nag lu mu war a mën naa ni defaraat la pour xam nag dina mën a jàppale ay joueurs am ci moment yooyu nga xam ne ca la toll waaye kookee di Arteta moom it di coach Arsenal moom it seen jafe-jafe yi ñuy dund ak niñ mel jamono ji génn ba yee ci yàb bi nee na nous avons été très malchanceux danoo ñàkk sens trop mu ngi noonee euh, nous avons dominé l'une des meilleures équipes jot na noo euh, mën naa ni dominer équipe bokk ci équipe yu mën ca Europe mais nous euh, n'obtenons euh, pas euh, les résultats c'est ce qui manque nee na nag ak lu ñu leen dominer dominer wan leen ne ni actuellement mën leen leen gagné ba tey duñ leen gagné looloo métti ci mbiri kookee di Arteta génn na ba wax lu ni mel la di Diego Simone nag di coach Atlético Madrid moomee nag génn na ba wax nee na regardez ce qu'est le football xool leen li ni mel ci football ce que vous avez fait hier soir semble énorme li ngeen xam xaw li ngeen def foofee euh, démb mu ngi noonu ca ngoon mën naa ne doon na lu jéggi dayoo puis euh, tout s'écroule la vous avez l'impression que tout est faux Euh, après le match contre le Betis, nous avons parlé, identifié ce que euh, nous ne devions pas faire et nous sommes sur la bonne voie pour continuer dans cette direction. J'espère que nous pourrons maintenir cela euh, car c'est la partie difficile lu métti la loolee jéem nañoo waxtaan seen biir jéem a xool lu baax ñu teg ko ci raay bi lu bon ñu teggi ja tegee fële te it jàpp nañ ne war nañoo mën a continuer ci yoon boobee personne ne s'en souvient cela reste un souvenir que personne ne peut vivent dans le présent et nous vivons tout dans le présent amitié famille Amis, le football, c'est comme ça la vie. Ce que vous avez fait hier reste un souvenir magique, euh, comme les bons moments passés avec des amis, la famille, avec le football. Mais la vie, c'est aujourd'hui et euh, vous êtes euh, trop, euh, toujours jugé pour ce que vous faites aujourd'hui. Coquet euh, dit Euh, mën naa ni euh, Simon kàddu yooyu la jot a génne daanaka situation la sax loolee gudd na loolee teg ko ci axe waaye naan ko Benfica nag moo dóor 4 euh, buts à 1 kookee di Di Maria ka nga xam ne nag moo raté penalty ndaysaan di canalo guru la Turquie bi nekk ci forme jamono ji ñëpp di wax ci moom ba Manchester City bëgg ko et tant d'autres clubs moomee nag génn na ba wax ca lam raté nee na je suis désolé d'avoir raté mon premier pour l'Inter aujourd'hui aujourd'hui nee na mu ngi jéggalu waaye lu ko metti la mu raté penalty premier bu njëkk ci foofee ca Inter de Milan mu ngi noonee tey jii euh, démb bokk on peut dire je savais que cela devrait arriver tôt ou tard xamoon na ne loole dina am euh, ak nu mu mënti demee mais euh, pas dans un match aussi important mais nag pas mu bañ a doon match yu am solo ni mel nee je pense que nous avons dominé le match et que nous méritons mieux nous avons juste été un peu malchanceux nee na jàpp na ne mu ngi noonee danoo ñàkk sens rek ba tax nag ñu am li ñu mel noonee ca match boobee nga xam ne jot nañ faa dund lu méttee méttee métti ba tey nag kookee ñu naan ko Sanaloglu la Turquie il fait partie des meilleurs militaires en ce moment euh, fii ci Europe ñëw ci kan ki nga xam ne il fait partie des meilleurs coach ci Europe muy kan kookee ñu naan ko Hans Flick nag dem démb defetu baax saa bi jot na cee wax jot na ci ah wax na ci arbitrage bi wax na lu ko métteeg lu ko neex ak yooyu waaye Hans Flick on peut dire que ni euh, vraiment euh, coach la boo xam ne nii mën naa ni ku gëm dogal la moomee du nekk fii toog di yuux arbitre dal ci seen kaw moom wax na loo xam ne ni c'est respectueux tu sens que ni ce gars là sportif et fair play moom du tellu ci ay mbir di jël ay excuse di ko teg ci arbitre di ko teg ci ay joueur ak yooyu benn mu ngi noonu moomee na génn ba wax ci kan Lamine Yamal balaa moo ñëw ci arbitrage bi nee na si Lamine Yamal avait été euh, ñu laaj ko nag si Lamine Yamal avait été en forme aujourd'hui il aurait joué euh, mais il n'y avait aucune chance euh, di mën naa ni que mën naa ni bu nekkoon en forme mënoon na football mais amuñu woon benn chance pour mu football nag nekkul woon ci 100 pour cent Lamine manquerait à tout le monde Lamine ñëpp lay manqué je ne sais pas s'il sera de retour après la trêve internationale nee na xamul nag ba xam dina defar retour après trêve internationale bi ñu ngi xaar nu mbiri nar a demee ak nal ak naka la bien sûr l' absence de Lamine Yamal a influencé le résultat na nag jàpp na ne euh, ñàkk teewu Lamine Yamal ci biir terrain bokk na ci li tax ñu war a mën a ñàkk seen match boobu nee na ce jour nekkuloon seenu bés nous avons plus pas plus pas eu de véritables occasions et de marqué et nous avons pris de mauvaises décision dans les dernières tiers nous devons accepter que nous avons été mauvais nee na nag euh, li ni mel mën naa ni amuñoon occasion yu bëri bay mën di créer bay créer occasion yu bëri bay mën di ko am ba di ko concrétiser di ko dugal nee na nag li ñu denoon seen problème mooy que ci dernier carré bi dañoo xawoon amoon ay jafe-jafe dañoo war a nangu que ni démb ñoom daal nekkuñu ci woon du woon seen bés loolu la Hansi génn di leeral ci euh, match bi ni mel la démb nee na nous sommes les seuls responsables de la défaite nag ñoom ñoo doon euh, mën naa ñi tax ñu ñàkk match boobee ñoom ñooñu muy acteurs yi nekkoon ci biir terrain bi nous aurions du et puis mieux jouer noonu waroon nañoo mën a yokk seen football mu def football bu baax nous euh, nous n'avons pas créé autant d'occasions que d'habitude jotuñoo mën naa ni créer occasion yu bëri comme nan ko doon defee seen n'était eh, pas notre jeu aujourd'hui eh, nekkul woon seen football dëgg-dëgg dem maa ngi koy wax ils ont joué avec beaucoup de de détermination muy waa Real Sociedad football bu am fulla leen football joxe lépp lu amoon nag seen biir bi ñëw dugg nous avons pris de mauvaises décisions dañoo jël décision yu bonne mauvaise décision moom laan fi génn wax nee na nous ne pouvons pas blâmer l'arbitre mënuñoo nag nekk di castig arbitre beeg nous sommes tous humains dit c'était une grosse erreur de notre part tey jii nag erreur bu mag lañ def boo xam ne ci ñun la jógee j'ai dit à l'arbitre qu'il n'avait pas pris une bonne décision avec le but euh, qui nous a été refusé nee na wax na arbitre bi que ni jëlu décision bu baax ak bii bi nga xam ne jot na ko refusé mu ngi noonu le but refusé de Lewandowski a été mal pris bii bi ñu bañal Lewandowski nag nañ ko jëlee baaxut c'est clair c'est mon opinion nee na loolu am la nag lu gis-gisam la parce que j'ai vu la photo nag gis naa photo yi lu leer la lu leer la il faut l'accepter dañ ko war a faute de l' du faute arbitre bi loolu la Hans Flick génn di wax waaye te li daal euh, ñaawlu ko mais aussi tamit ànd na ak fair play ak mu ngi noonee gars yi ngeen xamee ko noonu ma xaar ci commentaire dan ngeen gisee li képp koo xam nag abonné goo suñu chaîne YouTube bu ko taay yi bësal bouton bi ngay liker di commenter di partager ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa